muy xubbu taaha di bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokki njaareem yëpp mbokki bawal waaye nuyu bu baax mbokki tuuba mbokki tiwaawan tabaarakallahu ñu ngi nuyu téléspectateurs yi bu baax di leen bége ngir ñuy topp ci seen site bu am solo boobu 3w point bawal times point com mbokk yi seen émission comme ni ma ko daan defee xubbu taaxa rek ñu fas yéene dalal sëñ Abdou Khader mi nga xam ne tàggkat yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam sëñ Abdou damay dégg wolof njaay naan otoraay bu jibee gaar day korne bu kornewul kenn du xam mi ngi ñëw sëñ Abdou Khadr salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatuhu baax a baax di la jox sa wàccuwaay wi la sama borom jox di nuyu mbokki jullit mbokki taalibe nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu nekk fii nga nekk ak ñoom maa ngi leen siyaare baax di siyaare kilifa diine yi ci réew mi yëpp bàyyiwuma kenn jiital Cheikh Mountakha Mbacké yàlla guddal fanam lool wéral ay cëram ak sama sëriñ sama bunt ci sëñ Touba di Cheikh Moustapha Mohamed moom sëñ Mbacké soxna loo ko ñaanal mu gudd fan loolu te wér kilifa diine yi bàyyiwuma kenn taalibe yi bàyyiwuma kenn waaw kon sëñ Idrissa ba ci kanam rek. mbokki mi ngi noonu dégg ngeen nuyoo sëñ Abdou di profité bu baax di nuyu sëriñam bu baax boobu sëriñ mustafa sëñ Abdou Khader soppe yaa ngi seetaan taalibe yaa ngi seetaan waaye kilifa yaa ngi seetaan lan nga ñu indil ci mbindu mag ñi tabaarakallaahu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 مع عيوبي ومع إفاسي من خاد لي سكور في أنفاسي حمد رب القدر الناس مؤيسا من مال الخناس مد لخاتي مجل الخياس من بيبا جملة الأقياس مد naasi bi sunnatil dégg ngeen imdaax yu am solo lool seex Mous Cheikh Abdou ñu ngi lay jaajëfal bu baax di kontaan ci am daax yu am solo yooyu wax dëgg yàlla yal na yàlla barkeel baat bi yàlla dolli la wér yàlla suturaal la lépp loo bëgg ci kër seexul xadim jàmbaaru lislaam jooju yàlla defal la ko bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Mbàkke soxna loo di koo xam ne nit ñi bëgg nañ ko lool ku ko dégg rek xolam tooy sëñ Abdou Khader sëñ Mbàkke soxna loo moom tabaarakallaahu looñ ciy may noor ak nawet ba kenn mos la jàq mënun fu jëleeti sàqum noor ak nawet ba fun tollu di buur waa daaru xuddoos waa daaru xuddoos fu jëleeti mbër ma daa añaale daaru xuddoos gépp daa leen reeraale waa daaru xuddoos bu ngeen gisatut sëriñ Mbàkke soxna loo mooy leen di Cheikh Moustapha njëg Mbacke mu faj seen aajo Cheikh Mbacke balla ma ca ngoy ngoy naa la ku ngoy ma ngoy ku ngoy ngoy naa ci Cheikh Moustapha njëg ay Mbacke balla ay sa yow sa baay daa fa taajo yi ba xëy na meññ moo nu tax di xaaju. tabaarakallahu Cheikh Abdou Khadir wala yi sedd na buy. Seydina Ali xam naa moom dafa daan ndax di yëngal bopp rek. Mm. mu koy nuyu moom bu baax nga bokk ci ñi nga xam ne boo woyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man dama ko yëg bu baax loolu yàlla moo ko def tabaarakallaahu ndax Cheikh Abdou Khadir moom dafa amoon jur wuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala bëggu bëggu boppam moo ko dugal ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que taalibe Serigne Touba. waaw sëñ Idrissa maa ngi lay baax loolu moom dinaa sawar a tontu lool dégg ma laaj laaj bu am solo waaw maanaam ginnaaw ndimbalul yàlla mu mbeesoo ak mbaaxu sëriñ bi ak tànnam ndax nee na xasidaam yi mooy tànn ñi koy jàng du ak juddu du ay pexe ngi leen ludut mu bëgg laa dimbale bokk boole ci ñi koy yëkk sa xasida yi ndax sëriñ moom sëriñ Tuubaa waaw ndax baat bu neex taxut a jàng xasida déedéet sëñ bi moo lay tànn boole la ci ñu ñuy yëkkati xasida yi rek waaw ñu sant ci yàlla bu baax loolu weesoo it wax dëgg yàlla ñu juddu suñuy kilifa yëpp daay murit saadeex ñu juddoo ci këru taalibe ci daara ba pare am sama mag ju bokkal ndey ak baay xam ne mooy sama kilifa di sama taw waajur sëñ Cheikh Mbacke Thian gaynde yaakaar naa njaareem fii ñu bari xam nañ ko boo génnee sax ñu bari jànkatu njaareem la ñuy wax muy sama jëwriñ teeta macc dëgg yàlla ba ma mën a gudd dara moom laa doon topp ci ginnaawam buñ demee ciy jàng sax bu waree fanaan damay toog ci taabal ji di weccee ñuy ñëw ci àddee di joxe àddee ma leen di wecc boobu mënuguma toog aw yàlla di dogal di dogal ba ma mën a toog di aw ba yàlla di dogal noonu muy demee nii maa ngi koy sant bu baax sëñ Cheikh Mbacke Thiane Gaynde di ko ñaanal mu gudd fan loolu te wér ba ji ma am ci moom ma àggale ko ndax ginnaaw ba yàlla weesoo moom ndimbal gi ma sëriñ bi ni mën a dimbale maa ngi koy sant bu baax lépp moom lu ma ci mën rek moom la Cheikh Mbacke Gaynde ñoo bokk ñaari waajur ñoo bokk lépp daal muy sama mag di sama jëwriñ waaw maa ngi koy sant. mais tagg yonent bi gaa yi jël léegi bëgg koo def euh, fowukaay ñi nga xam ne dañuy tagg yonent bi di ci boole ay caaxaan tabaarakallaahu ñooñu ban ban message ngay lancé jëmale ko ci ñoom. waaw ba tey sëñ Idrissa laaj nga lu am sa wax nga lu am solo ndax yonent bi ak ni màggee ci yàlla sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy ngeen ki mbindéef gën ñëpp yàlla dimbale la. bañ mën laa tudd di tudd yonente bi bañ ne Abdou Xaadir ñu ne day tàggatu yonente bi kooku war ngaa xam sa bopp war ngaa xam li nga yor war nga xam ki nga doon ba yow daree caaxaan waroo koo jege ta mbind mii ñu nekk nii di ko jàng mbindum mag ñu baax nii duy caaxaan dañoo daj lu ne ndox ko am moo xam ñun ñi nga xam ne ci wàllu murid yi mbindum sëñ Tuubaa mi ñu yëkkati nga xam ne ba mu koy bind amul benn maam yi kenn ju taxawoon ca ginnaam jox ko daa wala nga sotal ko xalima kon boo la yàlla dimbalee ba nga koy jàng wala ngaa fonkaat daal loolu laay wax ñëpp ku koy jàng nekk maa ngi lay wax nga góorgóorlu ci. teg ci message baa ngi yàlla nañ li ñuy ñaanal suñu bopp. nañ ko yàlla boole defal. amiin amiin barki mag ñu baax bañ na ko ba bu sax danaan la Cheikh Abdou Khadre ma Abdou Aziz Dabakh. moo daan wax naan daarul habibi qulubuna wax di Abdou. jàngu mbëri naa ay maam lay laay jëjëb naa xam-xam la feeseey maam danu na mbër seexu Tijaan sallallahu alayhi wa taala anhu lu neex du doy Cheikh Abdou Khader temps bi daf ñoo xooj lool waaye ñu ngi lay jaajëfal di kontaan ci yow xam naa ne jataay bii moom du yàgg dara daañu ko amalaat ndax yow sunu soppee nga sunu xarit nga Abdou Khader nga tàggu say soppe waaw kon mbokki taalibe yi mbokki àdduna yëpp rek maa ngi leen di mm, tàggu ci loolu ma doon wax ci Alaaji Abdou Aziz sama maam ju baax jooju sama soppe ma bëgg ko ngir jëmm yàlla barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf. mbokk yi mi ngi noonu émission baa ngi noonu Hubbu Taaha tabaarakallaahu tele baa ngi noonu yéen yéen a ko moom seen bu am solo baa ngoog yal ñu yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla boole defal jàmm yàlla bëggloo ñu yonent bi in uridu ilal islah mastataatum wa ma tawfiq illa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillahi rahmani rahim